voilà euh, Mor Diop la ñuy dalal dalal nekk secrétaire général bu SNATS syndicat national des auxiliaires de transport du Sénégal affilié à l'Union démocratique des euh, travailleurs du Sénégal Mor ñu ngi lay nuyu di la dalal ci plateau bi. Euh, lay fay asu di di la nuyu di nuyu téléspectateur Mhm. gis nañ leen fan yi ñu génn ngeen daal di euh, teg euh, janook taskatu xibaar yi di dénoncer lu jëm ci ay licenciements abusifs et arbitraires yu toll ci ay euh, pères et famille pères de famille et travailleurs yoo xamante ni mhm. ca ñuy féete ca Nicotrans Sénégal ak yenn société sa mën nga si dellu si waat pour ñu comprendre waaw mën nañ si dellu si waat ndaxte dañuy dund lu diis dund lu metti trop ci période pandémie bi voilà ñu licencié maanaam dàq cinquante sept per ak mère de famille yu nekkoon trans ñu nekkoon biir nekkoon trans di fa liggéey amoon ay contrat CDI am na ñu fa def sax lu ëpp vingt et ans de service accompli euh, suñu waxee nag Necotrans wax groupe Bolloré euh, te leeraluñu lan mooy le lien formel dafay des tuuti peut-être ñi nekk dans le domaine maritime loolu leer na seen bopp euh, en 2017 août 28 août 2017 au niveau de Paris seen tribunal de commerce euh, Necotrans da doon ko dañ ko doon jaay Necotrans bi nekk Sénégal ak yeneen Necotrans Necotrans dafa nekk dans 37 pays du monde majoritairement en Afrique euh, Bolloré groupe dafa postulé woon comme yeneen tamit printemps dañu postulé woon moom li ko ñoroon mooy mu jot nécotrance Sénégal parce que nécotrance Sénégal dafa nekkoon un concurrent bu ko yàgg a sonal daal ci wàllu liggéey euh, bi loolu amee nag bi ñu ko racheté 37 mois après ci la ñu indi un plan qu'on un plan nébuleux de liquidation des travailleurs parce que biir Necotrans y a 112 travailleurs te 112 travailleurs yi euh, groupe Bolloré dafa blandir. le motif économique wax ne moom dafa à nekk difficulté économique pour dàq ay liggéeykat ñun dañu bale d'un seul revers de la main li ma avancé comme motif ba tey ñu wax yow nii Bolloré mënul prouver que nii dafa nekk en difficulté naa la ñëw <coughs> baam naa ñëw ci ñaari pàcc bi si njëkk moo di motif économique bi muy avance boo koy avancé dans un groupe il y a huit au minimum kon dafa am kumba am ndey ak kumba amul ndey li yoon wax mooy soo jëndee une entreprise moo xam rachat surtout à cent pour cent yaay nekk personne morale bi yaa moom actif ak passif ci biir loolu dañuy fete côté benn boor kese maanaam singili liggéeykatu Necotrans pour jëm leen a liquider loolu la ñuy ne dafa tegul ci yoon te yëmu yemuñu foofa ah parce que def nañu au minimum. Euh, mais bëgg leen liquider juste comme ça euh, pour quelle raison. raison bi ñu avancé mooy euh, motif économique maanaam ñoom euh, liggéey bi dafa wàññiku foofu te liggéey bi ku xam Bolloré xam ne tey jii économiquement tey liñ gën a taxaw liggéey bi wàññiwul en aucun cas euh, lenn moo am mooy ils ont perdu un marché oil gaz bi moom lañ perte mais bu ñu perte oil gaz bi au retour état bi jox na leen marché bu gën a fructueux cela muy beneen marché bu bees te oil gaz bi tamit ñun dañ si d'accord ak président Macky Sall dafa ne content local def ne pétrole ak gaz bi Euh, nañ def préférence nationale sénégalais yi xamante ne fi lañ dëkk pétrole gaz bi génn fi nañ jox entreprise nationaux yi pour ñu mën ko doxal loolu ça n'a rien à voir parce que tey jii Necotrans benn mooy bi mu racheté euh, euh, Bolloré bi mu racheté Necotrans bi si njëkk mooy dafa jël tout ce qui est patrimoine soo nekkee fii à Dakar rek siège yu Necotrans bi fu nekkoon rek c'est un milliard et quelque lañ koy estimé siège bi rek sans compter groupe yi ak yeneen matériel bi patrimoine bi rek c'est un milliard et quelque des milliards et quelque soo jigee ci patrimoine bi yaa ngi ñëw ci li ñuy wax le bijou dans le milieu maritime mooy le portefeuille clientèle ñuy ñaawlu ñoom li ñu maanaam defee un licenciement abusif parce que bi ñu ñëwee ci inspection du travail euh, séance contradictoire bi si njëkk le 24 euh, le 24 décembre 2020 bi nu ñëwee def suñu consultation ak inspection dafa bind rapport inspection du travail et de la sécurité sociale demandé euh, groupe Bolloré ak Necotrans ñu arrêté procédure licenciement pour motif économique bi ça n'a pas été le cas je dis bien ça a été bien elle bien notifié euh, teewul ñoom. def nañ inspection du travail daal dinañ leen jox boobu les. Euh, notification rapport waaw rapport boo xam ne c'est signé par. Euh, euh, l'inspecteur régional Seydina Diagne, que nous saluons de passage, qui est en train de faire un travail ils formidable. Respecté. pas du tout respecté. Et au-delà de tout cela, la moo gën a métti mooy ce sont des licenciements taillés sur mesure. parce que tey jii am ñu ñu ñu ñuy beddi am ñoo xamante ne ñoom la ñu ciblé. merci beaucoup parce que tey jii même fekkonte ne loolu am na li ñuy avancé ñun gëmuñu ko d'accorduñ si wax nañ ko fe fépp nag fekkonte ne loolu am na sax laay wax de ci am bi muy am hmm, dañ ne licenciement économique boo ko def dafa am ay euh, ñetti critères yu jiitu bi si njëkk mooy aptitude de compétence loolu loi bi moo ko wax beneen bi si topp mooy ancienneté beneen bi si topp mooy euh, situation familiale ñu koy wax nombre de parts fiscale te am na ñoo xamante ne ni quatre-vingt-dix-neuf amoon seen embauchement ba tey jii dañ leen a dàq bàyyi fa ñoo xamante ne ni xëy na quatre-vingt deux mille dix-sept lañ ñëw wala deux mille quinze bi lañ ñëw déjà rek loolu c'est contradictoire ñaar bi dafa ñoo ne c'est taillé sur mesure dafa am nit ñu ñu ciblé pour dàq te au-delà de tout cela hormis les cinquante sept pères ak mères de famille yu ñu ba noppi dañu ciblé woon cinq délégués du personnel parmi les dix que compose le collège des délégués du personnel cinq yoo xam nga ñan la ñi xam bu demee négociation ñoom ñoo jàkkaaroo woon ak Bolloré di défendre travailleurs yi comme ça se doit wax ne leen licenciement bi tegul ci yoon jaadu ñoom d'accord te d'accord si ëllëg ñooñu lañ cibloon pour dàqale ñi nga xamante ne defoon ce qu'on appelle la politique des chaises vides ñëwuñu daw ñooñu lañ fa bëggoon a bàyyi heureusement que Sénégal am dëkku yoon la inspection du travail parce que loi 97 17 du 1er décembre 1997 portant le code du travail euh, am na sañ-sañu ku am mandat comme ñu wax immunité parlementaire délégué tamit dañ ko soor ci côté boobu dafa am immunité bala ñu koy dàq ñu demander autorisation inspection du travail bi ñu demander autorisation inspection du travail ñëw avec le même motif bi ñu indi motif boobu moom la ñu brandir pour les cinquante sept inspection du travail dañu jox notification une décision que ne moom dafa refuser dàq bi nga xamante ni waa groupe Bolloré ak Necotrans ñoo ko bëgg a dàq délégué yi. licenciement yooyu kañ la am exactement. Euh, muy am le vingt huit janvier deux mille vingt et bii la am euh, procédure bi mu ngi tàmbali. depuis euh, le vendredi 16 octobre 2020 Mamadou Racine si mi nga xamante ne mooy PDG bu group Bolloré moo woote ci biir Bolloré woo délégué yi woo ñi ne dafay procéder licenciement politique économique loolu dañ jàpp ne en tant que sénégalais en tant que kilifa loolu dañ jàpp ne waa Bolloré wala ay tubaab bu ñu jógee fii bëgg a xañ sénégalais seen teraanga ki si njëkk a talal loxoom ne lii du fi amee mooy Modou Racine Sy et ça n'a te le cas jusqu'à présent vraiment ñu koy mettitlu di gis nañ ne wax dëgg yàlla mooy. ñan ak ñan ngeen euh, saisir ci mbir moom bi mu amee. yan autorité ngeen jot euh, bind wala waxtaanal ci mbir mi bu mu amee. waaw mu autorité yi ñu dañ koy ñaawlu. parce que waxuma waxtaan mais nous leur on sais nous leur avons saisi d'une manière formelle bind nañ suñu ministre tutelle muy sàmba si du travail ñu benn réaction bind nañ le o conseil du dialogue social muy la président Innocente Ntap Ndiaye euh, ba tey jii amul benn réaction li gën a metti mooy en cas de tension dañ ne conseil du dialogue social c'est pour le dialogue social lu mel ni bu war woon xaar sax ba ñu koy bind mais lu ñu avancé mooy dañ nekk période Covid mun ñu recevoir nit ñi loolu loolu la ñu dégg ca ña fa demoon doon def le suivi du dossier et pourtant soo diggee seen site internet da ngay gis la présidente mu takk maskam di wax ak la presse di dem dans des colloques fora et autres bind nañ également euh, médiature de la république ñoom di wax dëgg yàlla tontu nañu à travers une lettre formelle xamal nañu carrément que nañu poursuivre la procédure au niveau de l' inspection du travail et de la sécurité sociale et ça a été le cas te premier manche bi combat bi nous l'avons gagné au niveau de l' inspection parce que tey jii licenciement yi buggoon def ci délégué yi tey ji ba tey jii loolu amul te euh, bi na tam directeur général du travail euh, directeur général du port xam na moo metti ci fii mooy gis nga li am ni dafa am dans euh, deux pays similaires même cas xam nga ban ak ban la c'est au niveau de l'Afrique centrale même Necotrans bi booloo def ko jënd à la RDC ci benn li ñuy wax la compagnie mining de Katanga bu nekk République démocratique di Congo bi Bolloré jëndee foofu ay part ci Necotrans eh, dañ bëggoon a def licenciement motif économique bëgg a wàññi ñu bari mais dëkk boobu autorité yi ak syndicats yi ak travailleurs ñoo taxaw mancé comme seul comme un seul homme ñu xeex ko mu rek encore mieux biir Gabon en novembre 2016 euh, la société euh, des terminaux à conteneurs du Gabon bi nga xamante ni part yi fa nekk Necotrans amoon daf ko jaay Bolloré ça a le même cas mais lan moo tax Afrique centrale seen autorité mun a taxaw seen liggéeykat ñun fii au Sénégal autorité mun a taxaw seen liggéeykat et euh, li ñu def dañ violer l'ordonnance présidentielle double zéro un euh, du 8 avril 2020 président de la République moo bind ordonnance signé ko monsieur Macky Sall ne euh, en cas de pandémie ci crise sanitaire boobu kenn dàq kenn benn liggéeykat lu dul liggéeykat bi def Euh, faute grave wala faute lourde et ça n'a pas été le cas soo defee faute grave wala nga def faute lourde da la demande d'explication nga expliqué wu mais benn yoon loolu amu si kon tey jii li fi am mooy bi ñu demee négociation Bolloré dafa jaay doole liggéeykat yi ne yóbbu leen fu leen neex ba xam fu ñu fi di mucc. léegi yéen euh, naka ngeen fas yéene def euh, manifester ou dem ci yoon. waaw bëggoon nañu manifester mais vu le contexte sanitaire nous sommes des nous sommes formels bugguñu benn yoon def loo xamante nii dañuy exposer ay euh, maire ak ay père de famille bi njëkk mooy dañ koy ester en justice dañ ko yóbbu ci yoon loolu moom du lu ñuy nëbb te bientôt bu soobee yàlla di ngeen si dégg dara parce que li njëkk a def mooy taxawu liggéeykat yi ba délégué yi demunu léegi liggéeykat yi nga xamante ne ñoom dàq nañ la ba nopp dañ ko yóbbu ci yoon ñaare bi mooy lépp lu mu laaj ci forme de lute que ce soit au niveau national ou bien au niveau international nous allons le faire lu laajee sax ba nu dem ba grève de la nu nous allons le faire incha allahu rabbi. Mm. duñ bàyyi benn yoon. d'accord ci côté boobu. Euh, euh, merci da nga am leneen loo ci yokku. waaw li ma si yokk lu ndaw la rek mooy euh, fii ñu toll nii dëgg la dañuy masaw ñi nga xamante ni ku mel ni Ousmane Sonko. li ko dal di aji Sarr kenn du ko sànni également mais dañu bëgg tam ñu bàyyi xel que ni. Euh, le Sénégal des se limite pas sur euh, la politique am na ñoo xam ne ñoo ngi dund ay mbir yoo xam ne jafe na pire na trop ñu bàyyi leen xel également encore une fois étant syndicaliste dañuy apporter notre solidarité syndicale une solidarité agissante à l'endroit de Dame Mbodj li ko arrivé ba yàlla dugal mu génn ci jàmm ak salaam ñuy wax ne rek euh, autorités yi le bienfait n'est jamais trop tard tey jii dafa jot pour ñoom mutisme bi ñu génn si lanson une alerte pour dossier bi ñu mën ci dugal seen loxo afin que liggéeykat yi xamante ne nii dañu sonn trop te pandémie bi fi mu toll nii Sénégal ñoo ngi woon ci 7 pour cent taux PIB bi tey ñoo ngi ci ah à 0,7 pour cent kon ñoo ñu dàq seen yaakaar dafa tas ñoom fa lay jëlee ci liggéey kon loolu bu amee wax dëgg yàlla dañu jàpp ne lépp luy autorité war nga si mën a dugal sa loxo. pour ñoom ñu mën a jotaat seen liggéey parce que liggéey mooy dunité humaine. Mhm. merci merci euh, Mor euh, Diop euh, donc moom moo nekk secretaire euh, général bu SNATS euh, ak UDTS donc ñu dalaloon ko fii ngir waxtaanee licenciement yooyu nga xamante ni am na au niveau de Bolloré moom ngeen déggoon ngeen ko donc lu mu ci wax ak liñ fas